bisimilah asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ci jëmmi Serigne Mor mi teew fii Serigne Saliou Mbacke aajo ji faju barkeb Serigne mm, wa rahmatullah wa barakatuhu sëñ sëñ Assane Diop sëñ Assane Diop ñoo leen nuyu bu baax di sant bu baax si jéego yi nga xam ne moom ngeen jéego ñëw teew fii si kër sëñ Cheikh Saliou Mbacké te bëgg cee gëstu lu ma mën a jëriñoo lu ngeen mën jëriñoo tasaare ko ci adduna bi euh, taalibe Serigne Touba bi euh, taalibe Serigne Touba mën koo jëriñoo da da dañoo wax ne. dañoo dañoo wax ne dañoo bëggoon ku leen xamal seriñ Saliou Mbacké ak dundam loolu neexutu wax waaye Serigne Saliou Mbacké doomi Serigne Touba la taalibe Serigne Touba la Baye Fallou Serigne Touba la maam Cheikh Ibrahima Fall rek lay roy saa su waxee bay dina bàyyi sunu Baye Cheikh Ibra waa juróom wa taalibeem waaye roy téefam la doxin wa yëpp doxinu Baay Faal lay dox kon sëñ Saliou Mbacke bëgg bëgg sëñ Touba euh, def jàpp ci ak moom ñu njureel ci moom jàpp ci njureel gën ko jur ak taalibe rek lay jàpp doxinu sëñ rek lay doxee ci sëñ Saliou Mbacke ci jëmmi sëñ Touba kay doon murid sadiq di liggéey sëñ Touba di liggéey liggéey boo xam ne. kenn mësu koo liggéeyal kenn mënu ko mais kenn mënatu ko liggéey ba tey nag kon na nga xam ne sëñ Saliou moom nag dundam gi yëpp sëñ Touba rek la ak l'islam bi foo ko fekk mu ngi ci daara yi di di yar doomi sëñ Touba yi gune ak gune sëñ Touba yi di leen di jàngal di leen di yar di leen di war yoonu yàlla ak wàllu taalibe foo mëntu dem rek ci daara yëpp lim sañ si ay daara loolu yëpp loolu la si jublu ak mbaax rek la si jublu ci la nekkoon ci la yar ak njabootam ci ak njabootam ci leen nekk ndax barki démb rek leen jógee xelkom sëñ Cheikh mu Serigne Saliou Mbacké joxoon ndigal bay alaaji bu sa mii jox leen ndigal ñu dem liggéey ko ci xelkom ñoo taalibe yi nga xam ne sëñ Saali moo leen yaroon tarbiye leen ba gërëm leen loolu ne ñoo ngi lay joxaan ndigal ñu dem dellu xelkom jàppale gune yooya seen liggéey ba ba ba mën a dellu dellu dellu seenam njàng ñun itam ñu ñu ngi sopp sëñ Saaliw waaw ñun tam ay sopp Serigne Saliou lañ ba li yëngu rek ñu jéem a dugg ci biir moo moo war a ñu ànd ak ñoom dem xel koom def fa ñetti fan ñeenti fan sa saa borom defal lépp sotti na lu ñoo ngi ñaan nag yàgg koo teewe lool te am kattan ak wér ak xewal yi ñu fa demee waaye Serigne Saliou moom ab liggéeyam ñëpp ñëpp gis neen ko ab jant la ku ko xool gis ku ko ku ko ku ko ku gëm nit mu mu wéy tàngooram moom lépp sëñ Tuubaa la liggéey baa ngi dox faw na ngi laaj sëñ sëñ Muntaxa nag sa suñu borom yàggal ko fi lool te defal ko ndam liggéey boo xam ne moom la bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa moom sëñ Muntaxa joxoon ndigal ci liggéey boobu bu waaw bu wóor daanaka du lu ñu mën a taxaw di wax waaye lu mu doon rek lu baax lu ne sëñ Saliou moo ko moom moo yeesal alxuraan moo yeesal islam bi moo yeesal xasaayid yi ku ci yëngu ku ne ko sëñ Saliou moo ta nga ci yëngu kon kon nag daara yaa ngi dox ay waa këram di ko doxal yàlla nañ ko yàgg a doxal te am ci ndam barke sëñ Saliou jërë ngeen jëf waaw seen liggéey bi ngeen di wax nii seen pas-pas bi ngeen bëgg nii si euh, émission bi télévision bi yàlla na ko yàlla barkeel ba mu doon ay télévision télévision te barkeel ngeen murloo ko ne li ngeen def am na solo lool sëñ Saliou am na fay yàlla na leen fayal boppam jërë ngeen jëf